bisimila dal ak jàmm ñu dikk génn ci li gën a fës yi yéenikaay l'observateur yéenikaay la ñu koy doore mi xëy dikkaat ci saisine bu conseil constitutionnel bi nga xamante ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye defoon na ko ngir tas li nga xamante ni moom moo di assemblée nationale l'observateur ni Diomaye et les non-dits de la décision de sept am na mbir yoo xamante ni waxuñu ko ca la nga xamante ni conseil constitutionnel tontu na ki nga xamante moom moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax nag am na ñaari équation yoo xamante war nañu ko résoudre laata ñuy am xam te moom moo di législative bi noonee la ko l'observateur yéeni kaay daal di xam waaye tamit journal bi daal di cay yokk ni lu ñeel li nga xam te moom moo di motion de censure bi nga xam te député Benno Bokk Yaakaar yi ñu ngi ko doon xuppee ñi nga xam te ñoom di gouvernement ba Ousmane Sonko mu ni les grands enjeux de la dernière bataille li nga xam te nag moom mooy xeex bu mujj ba ñi nga xam te ñoom ñoo di député Benno Bokk Yaakaar ndax nag ñoom nar nañu daal di sox li nga xam te moom moo di démocratie sénégalaise ndax bu fekkente ni def nañ loolu nga xam te moom moo di motion de censure ak bu jàllee li nga xam te ni moom moo nar a gàkk ci démocratie sénégalaise loolee lépp journal bi di l'observateur di kan na ci cën mu gën a yaat journal bi di vox populi ne nag li nga xam moom moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal daal dina nangu dogal boobee nga xam ni bàyyi ko ci woy poncum ndaw réew mi daal di gàntal la nga xam moom moo nekkoon méwétam ngir daal di fi jëlee ñaari kër yooyu nga xam ñoom ñoo di conseil économique sociale et ak au conseil des collectivités territoriales journal bi daal di ciy yokku lu ñeel wàllu motion de censure Abdou Mbow passe à l'acte na nga xam te noonee ko xuppe woon defee ko ni ndax nag moom daal di nay saisir ki nga xam te ni moom moo di président boobu assemblée nationale ngir nag ñu daal di dugal li nga xam te ni moom moo di motion de censure jëlee li nga xam te moo di gouvernement boobu Ousmane Sonko ko Vox Populi pencum ndawu réew mi mu ne nag la honteuse session extraordinaire mérite bien une motion de censure selon Thierno Bokk mu ne moo di gàcce googee na mën a nga xamante moom moo di motion de censure ngir jële fi gouvernement bopp Ousmane Sonko noonu la ko Vox Populi xamle waaye moom lam Ousmane Sonko sax dana dem fa nga xamante moom moo di ca dëkku Macky amal fa ak ngaan foofee nga xamante moom moo di ca Fuuta niki juróom-ñetti fan ci weeru sàttumbar noonu la ko journal bii tey itamit le quotidien yéenikaay daal di ñëw wax ci li nga xam te moo ñeel mortal combat acte deux mu ne motion de censure Benno met sa menace exécution waa Benno Bokk Yaakaar lañ doon xuppe nguurug Sénégal daal di nañu cay yàgg nag waaye nag mu ne nag de à nos jours mu ne l'histoire des motions de censure ni ko dalee ci atum ba léegi Diomaye prend acte du rejet de son projet de loi moom nag jël na acte ci la nga xam te moo ñeel projet de loi boobee tamit la nga xam te moo di coow li xew foofee nga xam te moom moo di ca ONAS l'avenir de Cheikh Tidiane Dièye en question noonee ko journal Le Quotidien xam ne waaye tamit lu ñeel secteur BTP bâtiment et travaux publics waaye tamit lu jël wàllum construction les emplois ne sont plus bétonnés li nga xam ni moo ñeel xëy mi ci wàllu woowee daal daanaka fi mu toll nii dëgëratul noonee la ko Le Quotidien yéeni kay daal di xam ne le grand panel nañu nag suite à la vigilance yi nga xam loolu la ñu duppe nay leer mu ne règlement intérieur boobu assemblée nationale au cœur de la confrontation mooy li nga xam fi mu toll nii moo nekk ci wàllum confrontation ci li ñu boobu lépp projet de loi ngir tas gouvernement boobu Sénégal Walf Fadjri quotidien dikkaat na ci mbir moomu mu ne dissolution de l' nationale pari risqué ki nga xam moom mooy di Pape Demba mu ne il y aura conséquences sur le fonctionnement de l'État waaye tamit mu nuy Russie mu ne le président hérite des pouvoirs de l'Assemblée et gouverne par décret li nga xam ni moom moo nar a xew bu fekkente ne daal dinañu tas gouvernement boobu Sénégal jaarale ko ci motion de censure loolee lépp journal bii di Walfadri quotidien dikkaat na ci waaye tamit kàddu yi nga xam te ne Cheikh yëkkati na ko ñeel le roi Mohamed VI mu ne le Maroc demande des explications au ñeel confédération pour la démocratie et ñu ngay ŋàññi ki di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ne gouvernement bi daal gouvernement bu dangereux la Les Échos yéen i kaay dikkaati tamit ci lu ñeel wàllum motion de censure bi nga xam te Abdou Mbow teg na ci taabalu président boobu assemblée nationale mu ne Abdou Mbow traîne son devant les députés la mu bëgg jamono jële nag mooy daal jaare ci article bu assemblée nationale ngir nag daal di woo ñi nga xam te ni ñoom ñooy di député yi ngir nag ñu daal tas gouvernement boobu Ousmane Sonko mu ne Sonko obligé de démissionner en cas de vote favorable bu fekkente ni député yi wote nañ kii di Ilimane yi jëwriñ ji Ousmane Sonko dana démissionner ci gouvernement boobu Sénégal waaye tamit procédure ba daal di nañ koy ni ki tey jilee noonu la ko journal bii di Les Échos yéenikaay daal di xam ne enquête quotidien dikkaat ci motion de censure boobule mu jafe-jafe nguurug Sénégal mu ne nag la nga xam te tamit tukki na ci rejet bu projet de loi ba nga xam te yóbbu woon nañ ko foofee ca péncum ndaw réew ma ngir tas lu ñeel wàllum conseil économique social et environnemental ak li nga xam te moo di au conseil des collectivités territoriales mu ne nag ñi nga xam te ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar daal dañu duggal fi mu toll nii réewum Sénégal ci situation politique bu incertaine noonu la ko enquête yéen i kaay xamle waaye tamit mu ne li nga xam te njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mën na ko def ak xaajaloo xam te nañ ko ci biir assemblée nationale lépp journal bi di enquête quotidien dikkaat na ca Sud Quotidien moom itamit nañu dépôt de la motion de censure contre le gouvernement la majorité prépare son coup kaw ñi xam te ni ñoon di majorité bi ca assemblée nationale fi mu toll ni nag ñu ngi waajal seen coup kaw ba nga xam te moom la ñu fas yéene dóor ca ndoddal gouvernement bopp Sénégal daal di jëli Ousmane Sonko ci boppam gouvernement bi tas li nga xam te moo di gouvernement bi fii njiitu réew mi Bassirou Diomaye la ñu fas yéene tàmbali boobu lépp procédure ki nga xam te moom moo Ahmadou Wane teg na ko ci kanamu ki nga xam te moom moo di président boobu assemblée nationale Amadou Mame Diop noonu la ko journal bi xam ne témoin quotidien ne ñu nag guéguerre entre l' exécutif et le législatif motion de censure le dernier coup politique de Benno Bokk Yaakaar mu ne le président de la république prend acte du rejet de son projet de dissolution du conseil économique social et environnemental et du haut conseil des collectivités territoriales noonu la ko journal bi xam ne waaye tamit mu ne ñu contentieux électoral de la CICAD de 2010 mu ne nag Cheikh Diba veut faire exécuter un arrêt de la cour suprême quatorze ans après loolee di xemmemteefu jëwriñ ji nga xam te moom moo di Cheikh Diba gannaaw coow loo xamante amoon na ca euh, Sicap ca 2010 mu ne naka benn arrêté boo xamante ni boobu cour suprême la gannaaw fukki at ak ñeent bañu ko jëlee moom la bëgg a daal di doxal jamono ji leen laas quotidien nañu motion de censure contre le gouvernement Sonko sur siège éjectable ki nga xam te ni moom moo di ilimaani jëwriñ ji du Ousmane Sonko bon moytuwul nag fi mu toll nii daanaka fan yu néew ñoo ko dese ci boppu gouvernement boobu Sénégal ndax motion de censure boobule bu jàllee loolee danañu ko jële ci boppab gouvernement bi noonee la ko laas quotidien daal di xam ni waaye tamit lu ñeel coowal Cheikh Oumar Diagne ki nga xam te ni moom moo di ca tribunal kër gi nga xam te moom moo di Auchan moom la jàpp nag ci lu ñeel wàllum fisc mu ne tribunal bi nag la nga xam te laaj na ko ko jamono jile daal mooy ñu daal di amal benn expertise benn cabinet boo xam te FIDEX SDA la tuddoo laata ñuy daal di tranché nag ngir ñu xool li nga xam te moom moo ñeel boobee nga xam te ni Auchan war na ko fay nguuruk Sénégal libération yi ni kay dikkaan na ci boobu lépp dossier ak na nga xam te ni noonee la demee waaye tamit journal bi ne ñu nag affaire yi nga xam ni moo ñeel wàllum ONAS section de recherche tàmbali na liggéey boobule ce que le parquet a demandé aux gendarmes la nga xam te parquet bi moom la laaj ñii di gendarme ngir nag ñu daal di koy gëstu ci coow li nga xam te am na foofee ci violence journal bi di libération yéenekaay dikkaat na ci l'info quotidien dikkaat na ci motion de censure ak li nga xam mooy dissolution de l'assemblée nationale la course contre la montre de Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ñoom ñoo di député Benno Bokk Yaakaar yi li leen war jamono jile mooy naka daal di fexe déposer boobu lépp projet de loi de motion de censure nag laata ñuy àgg ci cëppandaw gi ngir naka daal di tas li nga xam te moom moo di assemblée nationale réew mi quotidien nañu nag variété de concurrence déloyale dans le secteur médical maanaam ku jéegoo xamante ni meeku nañ ko ci bëri bu faj fajukaay ci réewum Sénégal mu ne nag par fond d'un grand scandale au CHU de Fann foofe nga xamante moom moo di hôpital Fann daal am na ji joo xamante ni am na fa ci lu ñeel ku jégoo xamante nemmeeku nañu ko ci biir bérébu fajukaay noonu la ko journal bi xam ne tribune yéeni kaay ne ñu Benno active la destitution du premier ministre Ousmane Sonko waa Benno Bokk Yaakaar nag ñoom fi mu toll ni tàmbali nañu liggéey bi ngir jëli ki nga xamante moom moo di ilimaani jëruñu Ousmane Sonko ci nguurug Sénégal noonu